basiiru Mbacké Diatta euh, je pleni le plénipotentiaire de Wallu du département de Guédiawaye le coordonnateur de Wallu au niveau du département de Guédiawaye membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. waaw merci beaucoup KSTV nuyu naa leen bu baax a baax di rafetlu d'abord seen liggéey bi ngeen def durant les élections li ma bëgg a wax tout simplement ci élections yi mooy euh, on est vraiment très content du déroulement des élections très fiers de la population du Sénégal, particulièrement de Guédiawaï où nous sommes. Alors, on a battu campagne dans les règles de l'art, on a gagné dans les règles de l'art et on prétend dérouler. Alors, les élections, nous avons gagné l'an, waaye gis nañ ni qu'il y une campagne de communication inconcevable une campagne de communication déroulée par seen directrice de campagne Tata Mimi Touré qui continue à accélérer sur une cadence qui ne progresse pas Cette fois-ci, c'est verbal. Alors, Mimi Touré est en train de déclarer qu'ils ont gagné les élections sur une partie du territoire national, se substituant aux commissions d'organisation de, de, recensement des élections. C'est ce qui n'est pas sérieux. Là, nous avons gagné, nous tous. On a vu aussi quelqu'un d'autre, comme le directeur Racine Tala, faire une sortie malencontreuse à l'endroit de ces agents de la RTS en direct pour leur sommet d'arrêter de parler de cohabitation parce que la cohabitation gêne mais man mënuma imaginer dans un pays de démocratie intimité des journalistes de ne pas faire leur travail parce que tout simplement ce qu'ils sont en train de dire ne leur arrange pas alors je vais couper court pour dire que les élections sont claires libres transparentes dans certaines localités je ne dis pas à l'intérieur du pays mais à Dakar parce que nous nous nous sommes dressés en sentinelle contre tout genre de fraude, même s'ils si ont tenté de faire des transferts d'électeurs, ils ont tenté de délocaliser des gens, les gens se sont perdus dans leur lieu de vote. Quand tu votes à Golf Sud, on te dit que tu es à Sangalkam, etc., etc. Bref, malgré ça, ils ont découragé la population, mais elle est venue massivement pour voter contre ce régime dépredateur, ce régime anticonformiste aux besoins de la population du Sénégal. li may wax lenn la la population ne doit pas laisser ces gens-là ñun Sénégal dootuñu nangu nooteel gi dañoo bëgg tout simplement jël Sénégal moom ko jël suffrage yi moom ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg kon debout vous les Sénégalais vous les patriotes vous qui êtes imbus de justice et de paix pour que cette forfaiture ne passe pas. mais déclaration Mimi Touré du lenn lu dul guerre de communication dajale directoire APR Benno bi pour yuuxu ni ki ñoom ñoo gañe mësuma gis li nu mel ñoom dafa mel ni ñoom ñooy opposant léegi. bu njëkk bi opposan yi ñoo doon génn ñoom ñu riposté mais léegi ñoom ñooy génn opposants yi riposté c'est pas sérieux parce que nii ñu koy doxalee réew mi mooy wane ni ki lajj nañu tiit nañu on a même entendu des audios fuités au niveau de leur de leur groupe WhatsApp les plus intimes pour dire que nañu bàyyi di wax waxu perte perte ñu wax comme si ils ont gagné c'est de qui se moque-t-on de quel Sénégal sommes ñun nag duñu ko nangu ñun tappalewuñu trichewul on a gagné bel et bien on attend que la les cours tribunaux yi ak yooyu joxe ñu suñu résultat et cela signifie que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale te bu soobee yàlla bu dee président ngeen di xalaat il va émaner de la l'Assemblée nationale est oppose et opposant waaw. bu ñu demee ñoom ba laa ilaaha illallah loolu moom bu ma koy wax damay jayi jayi parce que nag nañu waxante dëgg loolu la ñuy xalaat bëgg cee teg loxo gis nga Sénégal. nit moomu ko fa ñu jóge ba yegg si fii ku ñu gañe ku ne da ngay félicité ka ca des nga takk say kaaka dem parce que seetlu nañ fi mu ne nii gars yi dañoo seetlu ni ki bëggatuñu Macky Sall un pourquoi parce que bëggatuñu troisième mandat deux c' est parce que dañoo dajale ci saagajee xaste yi ak taaxuraan bi nekk ci au niveau de l' assemblée assemblée s' est en un jardin géologique où les perroquets dañuy def ay dañuy yuuxu pour ñu gis leen les chaises chaises pour que le patron Macky Sall leur loolu day dakk taaxuraan bi saaga yi ay député yuy transformé bi ay député yoo xam ne soo leen xoolee tout simplement tu sais nettement que ces députés c'est des députés qui sont là pour de trafics de passeport loolu mooy dagg maintenant si on nous on sonne l'alerte vous la population qui me regardez debout dites non à ces déprédateurs dites non à ces à ces gens à dañ kon dootu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que boo xasee ba gagné ba pare da ngay sécuriser bu ñu sécuriser ci urne ba mu génn ñun ñii nelawuñu ba ñu jógee ci ci ci ci ci campagne bi dañoo dem ci urne ñuy surveiller ñaax suñu mandataires yi suñu siégeants yi ñun ñi ñoo demaat ba au niveau des des des tribunaux d'instance pour surveiller le vote pare nañ ci jox nañ ko au niveau supérieur ils n'ont qu'à faire pareil et nous n'allons pas accepter benn hold-up du fi amee bu fi naree amee nag xam naa ni dëkk bii di ngeen ko dara transformer en situation bu doy waar ça moom vous êtes averti et euh, averti nag. xam na fi ngeen di taxawee. très bien yéen ñi sax gis naa leen fa le jour ji vous vous êtes des témoins oculaires yéen gis ngeen nervi yi indi seen i oto ñëw gaare foofu dañu provoque dem ñu ñëwaat provoqué ñu ba xeex yi am heureusement que taxawuñu de gros bras des nervis recrutés pour emmerder notre cortège pour emmerder non non non non notre tête de liste Ahmed Aïdara et Ndeye Ramassi Sokho la donc dañ leen a mujjee dàq ji. ils ont fouillé ils ont pris la poudre d'escampette parce que tout simplement xam na ni ki la détermination du peuple est irréversible ñun waay ragal amu fi moo tax daw nañu bàyyi fa seen seen intention de de nuire moo tax amet ñun ñoo ko ne amet jarul ngay génn borom càq du xeex ak borom baatu leen gaje nañ leen ba pare na doy. en tout cas nit ñaa ngi koy wax. nit ñaa ngi ne ni kii c' est le DG de la LONASE man wóoruma xamuma ces gens là mais les gens en parlent tellement si c' est le cas ils sont tombés au pas des pâquerettes parce que vraiment nag lu mu leen jaral nag xam nga li may ne gars yi ñun dañoo am suñu kalpe askan wi jox ñu ko ñu dugal ko suñu poos yow mi nga moomul kalpe bi. kalpe bii nga bëgg koo jël ci man man mi ko moom na ma jaral lu ne pour sauvegarder ko looloo xaw fi mu ne nii askan wi woteel nañu ñun ñoom moom suñu victoire kenn du ko foqati ci ñun tappale yu ñuy def nerve yu ñuy def du nerve yooyu kese ay saret la ñu dajale ay boy yu gainsman yu ñuul ñaaw bizarre avec ay paaka ñii di yore ay jam man xaw ma ba ay spécialiste la ay paaka kaa les gens karatéka la ñu xamoon mais léegi yat kaa xeer kaa at moo xew ci dëkk bi avec benno yat kaa Pakaka Mboldeka moo xew ci dëkk bi contre nous nous on n'a pas besoin de force on n'a pas besoin de violence on a besoin de du manifester dans les yeux ñu duma leen comme nu ñu leen duma te duma bi xam nga lan la dañoo duma mag président duma goro gi duma rakk ji. duma nijaay bi ñëpp la ñu boole duma donc la dynastie fay Sall Timbo Gassama est éradiquée au Sénégal point. loolu mënul nekk ay caaxaan la ñi koy wax nañu liir ji constitution nañu liir réglement yi fii de deux ans mënuñu koo tas fi mu ne nii les carottes sont cuites fi mu ne nii takk seeni kàkka waajal ko dem El Hadj Diouf mi bokk ci cinéma yi mi bokk ci golo yi koy ji leen di conseiller sax wax nañ ko dem nañ ba ñu ne. troisième mandat mënul nekk un deuxièmement dem nañ ba ñu xamal askan wi ni kii cette assemblée ne peut pas être. dissoute c'est fini les carottes sont cuites ñii nañuy ba ñu doxal ba 2024 keneen ñëw gouverner ce pays là Macky Sall moom il est fini donc loolu ñuy wax ni ay caaxaan la rek ay théâtre la rek mais kenn mënu au contraire assemblée bi moo mën a créer le président ay problème mais moom mënatu ci dara c'est c'est trop tard. résultat ñu ngi ñëpp di xaar loolu nag la ñëpp di xaar résultat yi na ngeen gore nag. da ngeen gore yéen a ngi tappale ba ay am na ay diwaan yoo xam ne nombre d'électeurs ak nombre de votants yi kenn xamul nombre de population bi ça varie ça augmente de façon exponentielle kenn musta xalaat loolu ay diwaan comme Podor et cetera ci kaw ñu ngi fay def lu leen neex càcc gaa ngi mel ni tulleeg màlle foofu waaye def leen lu leen neex profité en de toute façon nous nous comprenons ce que vous voulez créer un peu partout des niches de de problèmes des niches de contentieux pour que la cour constitutionnelle dise on a on a on a on a tranché en faveur de Benno loolu lañ dul nangu fi mu ne nii cette assemblée c'est fini c'est fini l'opposition est majoritaire te nu leen a muusaka waane ba nga wëlbati carte gi bu ngeen ko wëlbatikee nag on va se voir en face Sénégal fii la yéen ñu doon menacé di naan œil pour œil dent pour dent que ñun duñu def campagne ak yooyu farbal ba tourné na nañu toog te gis ñun ñoo fi nekk Sénégal gii moomu leen ko Sénégal ñun ñëpp ko bokk. yëf yi buñ ko baxal nen bi bu buñ ko baxal nañ ko omelette ku ne di ci capp di lekk affaire bi ñun ñëpp a ko bokk. dernier message bi may lancé population bi mooy debout yéen a liggéey lii bu ngeen ko liggéey ba pare na ngeen ko téye parce que nag. man gëm naa ni kii assemblée ñii di fa dem ils vont pour rétablir la démocratie ils vont pour faire respecter la séparation des pouvoirs ils y vont pour transformer cette assemblée en de véritables députés du peuple et non pas des peu des députés de Macky ni qui que ce soit yéen ñii nag ñuy fal ngeen bees yéen ñii di dem assemblée bu dee da ngeen fay dem ñu ger leen ngeen ànd ak Macky Sall vous ne nous verrez seen kër yi lañ leen di fekk di ngeen ñu gis bëgguñu assemblée boo xam ne députés yi dañuy wor Macky Sall est minoritaire nous n'accepterons pas qu'il ngeen dem fekk si yenn député ñu corrompre leen ngeen dem ànd ak moom duñu ko nangu am na ci nag suñuy liste nag ñoo xam ne dañoo gedd geddu li di ànd ak ñoom préparé wu leen on va pas vous laisser faire parce que askan wi duñu liggéey ba pare baabu nii jël ko di ko fooye ça ne passera pas. mais on remercie vivement suñu partenaires yi suñu colistières yi ñi nga xam ne ñooy yeewi askan wi ils ont fait un excellent travail ñun ñu fekk wàllu si leen ñoom dañoo yeewi askan wi ñun ñu wàllu si leen ñu def fi liggéey bu mucc ayib gaje lu kenn mësut a gis gañe nag. gagné bu leer boo xam ne c'est extraordinaire plus de vingt huit cinq cent onze voix lañ leen gagné la différence musuta am kon loolu liggéey bu rafet la on vous remercie et on vous demande de qu'on mette de l'eau dans nos verres ce compagnonnage est républicain ce compagnonnage nañu bàyyi di calculer les calculs à l'opposition c'est pas bon ils vont nous distraire Macky Sall fu mu jëm xam nga la la essayer de nu diviser diw est chef de l'opposition wàllu à ceci le PDS à mu jéem ñoo diviser maintenant si on pas intelligent on va se faire la guerre il va continuer à régner lui il est fini donc nous nous faisons de l'émulation une opposition intelligente nous sommes des adversaires pas des ennemis puisque ànd nañ ba yegg si fii sàggane nañ ko au local ba yëf yi raw ñu d'abord nañ ci législative yi na continuer ngala pour qu'on puisse transformer le Sénégal en un havre de paix et de justice non Macky Sall yorul réew mi Sénégal day tëñax tëñax rek il a rétrogradé la démocratie au Sénégal nous nous sommes d'accord que Macky a posé quelques actes pour continuer ce que Wade faisait les infrastructures mu ngi koy jéem malgré que certaines infrastructures def ma yu bari mais à des à des coûts exorbitants inconcevables d'accord nañ mu ngi liggéey mais li muy liggéey à quel coût loolu mooy suñu problème ba pare il le fait très mal à l'image du BRT à l'image du TER c'est de l'argent à ne pas finir li mu ca dépensé moo ëpp ya y a d'autres priorités. La jeunesse a besoin de travailler. L'éducation est en lambeaux. Jusqu'à présent, il a des abris provisoires. L'inondation est là. Ba pare bu ñu gens ne comprennent ay milliards et milliards inondation yi c'est toujours là bu ñu jógee di taaxuraan di def seen yooyu kon boog ñun nous sommes debout pour que loolu change mais la jeunesse là elle est déboussolée la jeunesse ne travaille pas lorsque Macky est venu il a trouvé au niveau de la banlieue que Macky que Abdoulaye Wade le patriarche Abdoulaye de l'emploi des jeunes de mu créé OFEJBAN devenu AGEP ANPEJ ANPEJ e yooyu yëpp c' est des structures qui se chargeaient de l' emploi des jeunes ba mu ñëwee yëpp la tas ba mu ko tasee ba pare dàq ña fa doon liggéey ces jeunes la chôment jusqu'à présent avec ça vous voulez que les gens acceptent ça moi je fais partie des victimes de ces de ces agences ba léegi bi ñu ma dàqee dama gagné sama procès mais ba tey kenn fayu ma ba tey samay droit kenn fayu ma mais nous venons à l' pour rétablir ces mais loolu noonu amuñ ci taxawaay parce que ñun yoruñu lenge loolu mënuñ cee taxaw lu dul wax dëgg wax leen rek tout simplement man maa ci gën a tuuti xam nga léegi-léegi gars yi dañu naan Sonko dañ ko rajee dañ ko dàq y a pas que lui beaucoup de gens souffrent am na ñoo xam ne dañ leen a fat dañ leen a affecté fu sori ñii ñu dàq leen fu ñuy liggéey Sonko la bosam feeñ mais nous autres pendant des années nous souffrons de ça te kenn dégguñu ñu wax on est resté ñun ñuy jéem a ger ba sonn ñu bañ waaye waaye sénégalais yi nañ diñ nañu bàyyi transhumance bi nañu bàyyi bëgge bi tey jeex tàkk léegi nag loolu nag wëlbati nañ ko on ne veut plus de politiciens qui qui ki qui passent tout le temps à transhumer ils sont à la quête vraiment des prairies marron loolu jeex na fi. sama dernier kàddu mooy je vous remercie yéen parce que vous faites un excellent travail gis naa leen sur le terrain ci élection yi gis naa leen bi ñuy xoxotal gis naa leen. biñ ñuy yóbbu ci ci ci ci ci tribunal bi gis naa leen kon fépp vous êtes sur le terrain vous faites un excellent travail donc KSTV bravo je profite de cette occasion pour remercier vivement votre technicien vos l'équipe l'équipe de de KSTV je vous remercie vivement pour l'excellent travail que vous faites ca kaw ca kanam